ak tuxaluk bërëbu fajukaay bii di hôpital Aristide la doon Dantec bu ndakaaru nañu ko jàppe woon ak démb lañu ko amal altine méngoo ko fukki fan ak juróom ci weeru pot mu mel ni nag coow leeg jàppel bàyyi bi ba léegi jeexagul andi ki tey ci suba ci talaata ji yenn ci ay liggéeykat la takk der yi daal di tey ci buntu bi mënuñoo dugg ci biir mu nekk nag loo xam ne ñaawlu nañ ko bu baax a baax ñoom yi leen liggéeykat nag ñuy rek am xel ñaar jamono ji nag dara leerul ci seen bopp ndax nag xam leen nañu ñenn ci ñoom ba léegi amaguñ fu ñu leen yóbbu ngir sax ñu jot seeni papier loolee nekk na ay jafe-jafe ñuy xamle ba tey ñi bile tëj ñu daal di ci bile hôpital daal dina nag tàmbali li daal di rek jur ay njeexintal bile bërëb ñu taxawaloon ko ci atum 1912 ba léegi rafetlu ñu benn yoon a li ñu def te jàpp nañ ni nag lu ni mel dana jur leneen. xam nga ñi ñu ngi fay di kaas naan ay cancer ay dugg na fee mais ñun suñu service hépatite B la ñuy faj am na ñoo xam ay porteur chronique la di ko doxantoo jamono ji Sénégal ñëpp dinañ leen contaminé dina leen contaminé dinañ leen wàll ndax fu mu toll lu ñu leen wax ñu ko def. nga toxal hôpital bi service bi xamul fu ñu jëm malade yee ngi nii xamuñ fan la ñu oram man tey soo am na malade bi may intéressé soxna si fan la ñu ma ne dama wax directeur am na ku ma woo barki démb barki laa ilaha illallah muhammadu rasulullah laa yaakaar daf maa woo téléphone mu ne ma soxna si noo def yaa ngi si jàmm mu ne ma sama yaay dafa woccu deret mu ne ko woccu deret mu ne ma waaw mu ne ma léegi dañu ko bëgg dugal horaire 3 heures du matin pour mu yegg si ma ne ko jarul dugal sa yaay ore bi jaay nañ ko mu tiit ma lan ma ne ko jaay nañ hôpital bi mu ne ma jaay hôpital ma ko jaay nañ ko ma ne ko fan ngeen dëkk mu ma Fuuta ma ko après Fuuta ban hôpital moo si topp mu ne ma Njum ma ne ko yóbbu leen seen yaay Njum xale bu di jooy téléphone ne sama yaay dina dee ma ne ko dina dee kay parce que yéen a votel Macky Sall Macky Sall jaay hôpital bi léegi seen problème wax leen ko Macky Sall ngeen yóbbu ko Njum mënuñu fi nekk ñëw fii pour jël suñu bagage ñu ne kenn du jël sa bagage fu ñu ko teg directeur ko teg ne kenn jël suñu bagage pour lan du ñu jël suñu bagage bagage xanaa moomatuñ ko nañu jox suñu bagage jël suñu bagage dem bés bu note de service génne ñu ñu yóbbu fu ñu affecté ñu dem bajuñu ko na génne note service ñu dem ndax mënuñu dem na ñu lay service ñu affecté ñu jël dem parce que bi dañ ko politiser bi alal kii la patrimoine la loolu lañ bëgg a def suuf la Macky Sall bëgg lu mu bëgg rek suuf la na jaay suuf fi ñun barki yàlla laa waxta sama wërsëg bu dee dee jeex dantek bii bu ñu hôpital Aristide Le sama wërsëg bu dee fii la nar a jeex na fi jeex ndax bu ma fii ñëw yàllaa ma fi indi xalaat moom dinaa fi ñëw hôpital bu ne daane am te gi rab bu bon lañu am ak Guinée foo déposé du jàll waaw tey moom suñu teewaay li ko waroon leneen la rek bi édifier su suñu sort dem ba déglu nañ ko si télé bi mu wax que travailleur hôpital Aristide Le Dantec ñii dinañ leen déployer seen hôpitaux yi ba pare si travailleur dafa am ñetti catégorie yoo xam ne daf si am quoi am na personnel CDI am na personnel CDD am na prestataire ñun ay prestataire lañ euh, depuis année 2022 si début 2022 ba léegi suñu contrat de prestation renouvelé wuñu ko waaw ñun kon euh, mën nañu wax que ni directeur bi bu ko neexee mu ne reconnaître prestataire quoi personnel presta personnel prestataire waaw si kaw loolu démb dañu ko dégg mu toog si télé bi que ni wax ni carrément que ni moom euh, prestataire dinañ leen fay. te bu ko neexee bu bu nee du ñu fay itam aussi ñun mënuñu ko yóbbu fen ndax amuñu fi contrat boo xam ne mu ngi en cours si loolu nag moo moo war a war yokk suñu njaaxare buñ sañoon mu édifié suñu soor koo xam ne nekkul nekkul en contrat nan lañ ko mën a fayee moom dem mu taxaw si télé bi que ni prestataire yi dinañ leen fay waaw loolu buñ sañoon mu édifié suñu soor tey ñëw nañ di dugg si hôpital bi gis nañ ni ko ni ko gendarme yi def même personnel CDI ancien personnel yeeg ñëpp ñëpp ñëpp tey képp ku ñëw si hôpital bi rek tere nañ la nga dugg quoi mu doon loo xam ne dañ koy ñaawlu waaw di woo sénégalais yëpp ñu ñu ñu def constat bi waaw lu ñuy lu ñuy lu ñuy ñaawlu daal lu ñuy ñaawlu la waaw di lancer un appel président de la république di nga wax ni li nga xam ne mooy tem hôpital Dantec catastrophe sanitaire mënu ko weesu waaw catastrophe sanitaire mënu ko weesu li ñu doon craindre si Covid bi dina am buñ tëjee hôpital Aristide ndax tëj tam daan teg du loo xam ne teg nañ ko si yoon du loo xam ne teg nañ ko si dëgg du précipitation bi moo dul woon yoon ndax hôpital boo xam ne 1912 lañ ko ko defar 1912 presque hôpital centenaire la kon du loo xam te ne war nañ ko tëj 10 jours au lendemain ñu ngi ñaawlu di ñaawlu di ñaawlu di ñaawlu ba ba sa kanamu yàlla ba ñi geste bi ñu def acte bi ñu def muy le directeur muy ñeneen ñeneen ndax bu fekkee personnel de santé da leen di wàññi doo leen wàññee nii quoi pour man waaw à six mois bala ngaa toj hôpital bi war nga wax ku si ne nga édifier ko si sooram mais amul benn personne boo xam ne édifier nañ la sa soor am na ñoo xam te ne def nañ fi ay 15 ans de prestation si hôpital Aristide fii la daan teg 15 ans de prestation ñu ko def waaw te ñooñu dañ nar a dem toog seen kër tey gisoon nga fii suba ni mu ni woon démb d'après ñun ni ñu dégg directeur bi suñu xel dalul démb ku toog seetaan télé bi dégg directeur dafa am benn malaad léegi bu décédé euh, ce matin à Nabi fii la nekkoon doon traité wu cancérologie curie yaa ngi dégg depuis une semaine nag mu dégg suñu problème bi mu agité ñu hospitalisé ko euh, Nabi Choucair que tey ci suba la xam nga ni loolu émotion boobu ak li mu dégg rek mun na ko agité ba déjà mu ngi ni décédé la waaw lii tamit ñun ban dëkk lañ nekk ba tey amuñu accès pour dugg si biir hôpital bi te ñun léegi ñun xamuñu ñun fan la ñu jëm sunu professeurs yi nangu ñoo jox wax ñun fan lañ jëm xanaa booy génnee nit bu dee locataire sax bu dëkk si kër ah xanaa booy génn sax dinañ la jox délai dinañ la jox kayit pour nga génn mais ñun dañu génnee comme ça tëj suñu service léegi fan lañ jëm directeur li muy wax ak ñun li ñuy dégg ak li ñuy subir fii ñun direk ñun ñoo ko xam ñun travailleurs yi ñun rek ñun ñoo ko xam. benn syndicat nangu cee intervenir ah je ne pas peut-être xawma mais ñun suñu bos ñun. SDT trois s ñoo nekk ci lutte bi depuis boobu ba tey ça fait 3 mois de cela ñun ñoo ci nekk di lutter am nañ lépp depuis boobu ba tey ñun ñoo fi nekk di di di liggéey man mën naa ne depuis 96 ba tey maa ngi ci hôpital bi fii lañ ma recruter contrat indéterminé infirmière comme infirmière. léegi vendredi ma ñëw pour mu kooku defaraat ma kayit yi rek ma mun a génne benn yoon mu ne ma bàyyil ba bàyyil ba ba lundi léegi démb du férié. démb ma ne du ma ñëw balaa su ma ñëwee sax du ma leen fekk après ma bàyyi ba tey te ma ñëw ñu ne ma du ma dugg te ñoom ñu ngi yor dossier yooyu su ma ko jotul du ma mën a dem euh, assurance. déedéet damaa duggul sax dugguma léegi maa ngi maa ngi leen di déglu ndax kooku joxuma sa numéro am kooku joxuma sa numéro am major bi tamit joxuma numéro am xanaa waaye yor nañu sama numéro maa ngi dem maa ngi leen di déglu bu ñu ma woowee ma xam ne woowu na ma bu ñu ma woowul maa ngi dem toog xaar. waaye nag nañu jàpp ñu joxe nit ñi seen këyit dañu si jaabante bi dafa metti ak taskatu xibaar yi ñu bari teew nañ fa ngir def seen liggéey waaye nag jafe-jafe lañu ca daal di am ndax nag takk der yi bàyyiwuñ leen ca benn yoon la dende ak hôpital baak lu ko war yépp dañ leen faa tere ñu taxaw fa mu nekk nag loo xam ne jàpp nañ ñu du yoon ndax itam ñoo fa teewal askan wi. suma taxaw mooy suma soxna dafa feebar donc euh, mois de mois de septembre waroon na def DP donc dama ñëwoon fii pour ñu joxoon ma benn lettre euh, de waa de recommandation qui qui prouve que fii la defee kii euh, analyse yi bañ ko confirmer pour ma mun a dem si yenn structure yi malheureusement bu ma ñëwee fii j'ai trouver euh, que l'accès était impossible donc euh, xamatuma lu may def au fait elle la rendez-vous dans trois mois je ne sais pas ndax dans trois mois dañ ma informer mais ce qui est important DP bu mu waroon na def loolu moo taxoon ma ñëw vous donc euh, voilà la situation. oui monsieur. ñu tuxal ko ni ki démb ci altine ji hôpital Aristide doon Le Dantec lu ni mel ngir defaraat ko. mu nekk nag loo xam ne jur na coow lu baree bari gannaaw bu ñu rekk rek yi yenn ci suuf sa dañu ko daal jaay ay privé